<clears throat> ay thèmes d'actualité comme affaire Ousmane Sonko bi nga xamante ni depuis euh, deux jours mi ngi occupé actualité bi déclaration de patrimoine tamit euh, jur coow gannaaw bi ñu euh, génnee bu bossu Idriss bu bossu bosu Idriss euh, Seck nekk président bu conseil économique social environnemental situation opposant ak activiste yi fii ci Sénégal affaire Boubacar Seye problème emploi fii ci Sénégal wàllum démocratie ak tamit liberté d'expression ci réseau sociaux yi régulation bi nga xamante ni njiitu réew mi mi ngi koy wax tamit ci réguler li nga xamante ni moom mooy programme média yi lépp daañu ko waxtaane ak kile euh, di Mandiaye euh, Guèye nekk chroniqueur politique ñu lay nuyu di la dalal jàmm euh, maa ngi leen di fay di leen gërëm aussi ci invitation bi ngeen ma def yaakaar ne xëy na suñu waxtaan nit ñi daan ci jëlee njëriñ di nuyu seen auditeurs yëpp di leen wax asalaamaaleykum. jërëjëf ñu lay remercier ci sa disponibilité ah, ponk bu ñu lay njëkk a laaj mu occupé actuellement euh, li nga xamante ne moom mooy euh, actualité bi euh, di affaire Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey jii mën nañ koo jàppee comme peut-être le principal opposant de du régime en place de Macky Sall. Mhm. Ah, tey jii ñu ngi koy tuumal ci ay affaire mœurs yow déjà ban analyse nga def ci loolu. waaw léegi pour man. c'est que affaire dafa xaw a euh, diis diis na. Mhm. ci kilifa boo xam ne danga bëgg jiite réew. Mhm. am na yaakaar ne nag du liñ ko dañ ko tuumaal. Mhm. waaye man bu ma ne woon place euh, li mu def du ma ko def. c'est-à-dire du ma dem bi ci euh, salon de massage mën naa jël masseur mu ñëw sama kër massé ma waaye dumay jël man di dem ma masseur parce kilifa la. te comme dafay jo yootu réew mi dafa am place yoo xam ne waru fa dem ak loo xam ne waru ko def mm-hmm. bon euh, laa yaakaar nag xale bi li mu wax daf ko bëgg a tuumaal waaye quand même euh, defu loolu. mais jàpp nga ni xale mu wax c'est juste coup monté daf ko bëgg a taqal. waaw loolu yaakaar naa ko parce que aussi xam nga boo nekkee politicien. Mm-hmm. nga nekk euh, koo xam ne maanaam dañ la ragal wala ñu yaakaar la. Mm-hmm. dafay am loo xam ne doo ko def ak foo xam ne doo fa dem donc pour piéger la. mën nañ la boole ak. Euh, ku ne ak kenn nit wala euh, jigéen en principe xam nga góor bu tëlee la première des chose ak li ñuy def toujours dañ koy boole ak jigéen. Mm-hmm. dans toute l'histoire de l'humanité ça s'est mm-hmm. toujours passé comme ça. DSD DSK xam nga ñu ngi koy wax. Mm-hmm. ak yooyu yëpp yu mel noonu la. donc moo tax moytu daf ci war te war nay diisoo ak ay nit yu koy conseiller lu muy def toujours parce xel du doy. mais li mu def noonu euh, ci sama gis-gis man erreur la. maanaam moom statut ak li muy yuuti ci réew mi waru woon a dem ci ay salon de massage. voilà déjà loolu prudence am. voilà waru foon yegg voilà il am na waaw mu ut mu fekk ko këram am na ñu ne sax boroom ñaari soxna la ko nag lan lay wut ci salon de de ah, massage. bañ ko fay tuumaal lu mel nii. loolu yëpp xam nga kii bi moo de dem bi daal je trouve que. Mhm. imprudence la ak erreur buñ ko mënee jàppee noonu. parce que ni ñu ko yaakaaree ak fi ko teg benn xel xalaatul ne loolu mais nag xam nga booy booy xeex ak nit adversaire la tous les moyens sont bons pour te pour, pour hmm. donc yow yaay am matu nga ne ah lii est su ma ko defee lu ma ci mën a fekk ndax baax na wala baaxul nga kii ko mais je, je trouve que euh, daal euh, rafetul daal. mais mais mais mais euh, du Ousmane Sonko rek mooy dem ci salon de massage wala di woo ay masseur ñu leen di masser parce que tamit. mën nañ ni affaire massage c'est c'est c'est c'est professionnel même bu fekkente ni am nañu ñu dugg ci biir commencé yàq secteur bi am na ay kinésithérapeute c'est recommandé da ngay gis ay artistes ay footballeur ay waykat ay ministre ay DG je sais pas ay président sax dañ leen di masser donc où est le problème Ousmane Sonko moom euh, santé ni war nañ ko masser mu dem fréquenter benn salon de massage non amul problème waaw ma ne bu doon ñeneen ñi ngi koy def voilà ñi ni koy defee xaw ma ni ñu koy defee dama ne bu doon man bu may dem ci massa sax dinaa dem salon boo xam ne ki may maase maanaam góor la du nekk jigéen. Mhm. parce que y a beaucoup ji salons. Mhm. Euh, massage ci yaram la bokk. aussi tàggat la bokk. mën na def sport mën na mhm. def leneen et tout et cetera mais ni mu demee noonu ak euh, xale bi ni ko waxee. lui aussi borom salon bi wax et tout cela c'est tellement nébuleux que doo xam lan mooy dëgg gi. mais man bu ma doon conseiller Ousmane walla keneen koo xam ne dafay def politique mu dugg ci politique du ma dem salon massage. Mhm. am naa xaalis boo xam ne mën naa woo masseur mu ñëw sama kër. Mhm. wala ma dem ci salon massage boo xam ne ña fa nekk góor lañ pare que bare nañu. de préférence mu nekk wala préférence heure bi itam. mais parfois mën na nekk góor sax ñu taxal la. waaw nag non non mais mais ba tey. Mhm. man sama wàllu bopp la du ma dem massage su ma amee ay soxna bu ma feebarul wala ma feebar ma dañ ma massé waaye dem salon bi man moom loolu moom. ça euh, pose problème moom waaw moom ma kilifa mais man mën naa dem salon. Mhm. parce que duma dara benn citoyen simple la donc foo ma dugg dugg mais bu fekkee da ngay wut. nga nekk un opposant boo xam ne tu es craint par le pouvoir. Mhm. dafa am yoo xam ne wax ak def ak fooy dugg yëpp da nga koy seet bu baax a baax bala nga koy def. mais mais naka nga gisee li Ousmane Sonko tontu bi ñu ko accusé hmm. gis nga ko euh, tontu bi mu tontu yow doy na la li mu wax parce que nee na lépp nguur gi la encore euh, ay ay manigance sous président Sall ainsi de suite essayé nañ indi nañ ay dossiers yu nekk jéem nañ ko corrompre ça ne passe pas léegi nag ñu ñëw si ay côté mœurs di ko accuser de viol wala ainsi de suite. naka nga gisee Sonko li mu tontu. waaw xam nga loolu moo waroon tax. Mm-hmm. moom mu seet fan lay dugal tànkam ak fan lay dem. parce que nguur boo koy xeex. Mm-hmm. il a beaucoup de moyens. Mm-hmm. donc da nga koy éviter éviter bi moo di fépp foo xam ne boo fa demee man la tuumaal wala ñu taqal la nga moytandu ko. Mm-hmm. wala booy dem nga ànd ak ay nit. parce que heure bi tam nekk na heure boo xam ne euh, peut-être c'est pas c'est c'est pas indiqué c'est pas indiqué. man daal lu ma koy digal lii xam naa ne tuumal la. parce que xale bi ni ñu waxee. am na ko mu doon jokkool téléphone am na mais yooy yëpp dafay am. Mm-hmm. parce que la politique aussi bon mooy loolu. Mm-hmm. tey Sénégal ni ñuy defee politique dafa ñaaw. Mm-hmm. politique du taqal nit du xas nit du ko ŋàññ doo wax jëfam wala li nekk ci moom politique ni ñu koy doxalee moo di dañuy seet li gën a baax li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam parce que politique tabax réew la tabax boo xam ne ñu koy tabax ci anam bu sell. ma jëmale nit ñi kanam askan wi di yëg ci seen bopp ne am nañ yokkute am nañ ngëneel mm. waaye politique du rek nga jël nit xas ko wala ngeen di waxante léegi te politique léegi loolu moo am ci Sénégal voilà ni ñu koy defee Sénégal voilà loolu moo moo moo moo ñaaw. mais euh, question bi ma lay poser Mandiaye euh, euh, est-ce que Sonko peut faire chuter le président Sall. oui il il peut il peut mën mën na peut faire chuter c'est c'est c'est difficile c'est-à-dire que hmm. éventualité la hmm. boo xam ne pour pour pas l'écarter mais il faut beaucoup de moyens hmm. pas seulement de moyens mais aussi de tenue parce que moom kenn mënul battre euh, le président mais mën am ay àndandoo yoo xam ne euh, gis nañ jëfinam mu doy leen ñu ànd ak moom pour mën a battre le président euh, Macky Sall. Mhm. mais le président Macky Sall ne se laissera pas battre comme ça. est ce que est ce Sonko déjà euh, comment euh, tontu nga mais kañ est ce que deux mille vingt quatre bii Sonko war na nekk euh, comment dirais je euh, candidat boo xam ni mën na wàcce Macky Sall. non nekk candidat moom dina nekk candidat. non mën na nekk kuy daaneel Macky Sall mille vingt quatre wala beneen mandat. xam nga loolu dafa jafe wax boo ko waxee yaa ngi wax li la neex parce que 2024 waaw euh, sori na mhm. te diggante bi c'est dans trois ans oui c'est dans trois ans mais c'est, c'est mhm. trois ans erreur mën na ci am trois ans beneen nit mën na feeñ mais tey dans trois ans nga ne kii mën na nekk kii mën na nekk mais c'est pas une certitude mhm. deneen euh, yeneen njiitu Sénégal ay doomu Sénégal d'ici trois ans mën nañu fi génn présenté wu li ma bëggul ñu wax ko moo di. Mhm. benn nit rek moo war a daaneel. président Sall mais xam nga lu tax ma laaj la question boobu. Hmm. parce que Sonko moom bi mu ñëwee. Hmm. dans les normes moom hmm. li mu teg ak li muy xeex ne dafay xeex ak système même système bi ko formé moom dafay xeex ak système boobu parce que système boobu la juddoo moo ko formé ba am tey lu mu am moom il veut combattre ce, ce même système que gars yi système yi taxaw na fi sax ne président yi ñu jot a am yëpp. Mhm. muy Senghor muy euh, Diouf muy Wade muy Macky Sall ñoom ñëpp sax dañ leen war a teg fusiller leen parce que ñoom ñëpp bokk nañ si ñi yàq Sénégal maanaam dafa départagé wu carrément ak homme politique yi nga xamante ni ñoo fi nekk kon euh, soo ko kese kan moo ko mën a euh, aider kan la mën a àndal pour jël nguur gi c'est ça le problème. parce que à un moment donné sax dem nañ ba ne ko euh, ci élection présidentielle yi 2019 euh, yi ñi mu doon xeex naan si système bi la ñu bokk. Mhm. parce que on voulait un nouveau type de président xam na ni euh, jeune génération bi ñoom dañu bëgg un nouveau type de de président léegi moom loolu lay incarner mais naka lay incarner loolu bëggu la bokk ak ñooñ ba pare te foog ñooñu jàppale ko pour mu nekk njiitu réew. loolu mooy je peux dire contradiction bi. voilà booy xeex nguur. Mhm. parce que fi mu nekk nii Sénégal benn parti rek mënatul daaneel nguur. exactement parti yëpp dañuy def coalition alliance. Mhm. booy def coalition ak alliance dangay ngay mhm. ñi nga méngool gis-gis ñi nga bokkal euh, xalaat nga ànd ak ñoom ñu dooleel la. te nag ngay diisoo ak ñoom. parce que fii li ñu gëmoon njiit bi lañ def lépp. mais njiit dañ ko jiital mais ñi ko jiital gënu ñi ko jiitul ëpp leen xel mën nañ ko wax loo xam ne du yegg ci moom donc da ngay bul kawel da ngay suufeel sa bopp. Mhm. ba tolloo ak ñëpp xalaatu ku ne nga jël ko segg ko mu mën la jëriñ ni mu wax ci yeneen nguur yi. Mhm. c'est vrai mhm. il faut ñu changer mais nguur du question euh, xaleel wala mag. alternation alternance bi muy wax générationnelle. wala beneen kii ñi koy jàppale ñu bari ñoo ko war jàppale. Mhm. soxla na ndimbal soxla na ay xalaat ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi foo démb ak ñuy ñëw plus les jeunes dafa war def benn composition boo xam ne c'est. kon est-ce que moom jarul mu changer discours am. Euh, système bi lay xeex. est ce que du changer parce que bu demee bay xeex système euh, à un moment donné mu dem euh, bëgg a tàllal loxo le président Wade ça pose problème. waaw maanaam foofu donc est ce que Sonko moom xam na li mu bëgg sax c' est la question. que que je pose. justement c'est-à-dire dem ak Wade. voilà erreur la. su ko defee il est en contradiction mm. parce que Wade ñi yàq réew mi ci la bokk. Mm. à partir de Diouf donc bu fekkee dafay bëgg a beesal. wala day xeex système munu ànd ak Wade le fait que mu ànd ak Wade déjà pour moi c'est une erreur buy ànd na ànd ak ñoo xam ne musuñu ŋànk réew mi kenn xamalu leen gàkk-gàkk mu ànd ak ñooñu ñu dimbale ko bari na fi mais nag il faut mu tànn parce que ñëpp bokkuñu xalaat parce que boo jëlee ñi nga xam ne dañu àndoon ak Wade wala ñu ànd ak euh, jóge ci Macky ñëw ci moom mu ànd ak ñoom c'est-à-dire que boobu xeex système dafay tax suuf mm-hmm. dafay tax suuf donc il faut li muy wax mu leer puis son discours mu bañ ko accès ci ay euh, ay ay xaste mhm. day def ay proposition li nga xam ne baax na ak lii ma nar yéene li ma yéene def mhm. ak lii ma fas yéene def mhm. mu xam ne ku ne da nga ci gis sa bopp ñeneen ñëpp seen âge wala seen màggaay wala seen nekkin et tout sa la c'est des détails nit ñu def yàlla moo leen bindee noonu waaw bu mu xas mag bu mu xas ndaw bu mu xas ne kii dafa dëkk fële voilà ku baax ànd ci ak xalaatam ci moom na ànd ak moom xalaat bi moo am solo li muy xalaat nit ñi yaakaar ci moom mu am xalaat boo xam ne bu sell la képp ku ànd ci xalaat boobu boobule war na man ànd ak moom ku àndul ak xalaat boobule mu xam ne kii munul def ak moom mu tekk de pet ànd ak ñooñu. gis nga gis nga ni kon liñ koy tuumaal nii est-ce que mën na sori munul sori. waaw waaw tuumaal bi xam nga tuuma. dafa yomb waaw affaire mœurs la voilà. tuuma dafa yomb. Mm-hmm. pour nga setal ko dafay jafe. loolu moo tax mu ne. surtout affaire u mœurs. affaire u mœurs cest que parce que parfois euh, a détruire homme sax côté xaalis bi. xam nga kii bu bees la. Mm-hmm. parce que ci histoire politique Sénégal amagu fi. Mm-hmm. bien que nii la ngi def xëy na peut-être day nëbbu feeñul mais bosom ni mu feeñee nii te dem na fa donc preuve yi peut dañ ko set lii ndaw si wax xëy na du dëgg mais le fait mu dem fa. mooy déjà. Mm-hmm. benn affaire boo xam ne mënatuñ ko weddi mënatuñ ko weddi. Mm-hmm. man daal li ma koy digal moo di politique dafay sell. Mm-hmm. doxalin bu sell xalaat bu sell nga gis nit ñu xam ne dañu propre maanaam dañu set mosuñu dugg ci njuuj njaas mosuñu lekk xaalisu kenn ñëw ànd ak yow man la dooleel ay jeunes ay vieux ay femmes n'importe qui donc na nga set qualité. nit ñi ngay àndal. moo am solo. si il faut baser il faut se baser sur la qualité des hommes soo ko defee mën nga dem ñi lay xelal ak yëpp danga dem yoonu sut mais bu fekkee da nga bëgg nguur rek ba ànd ak n'importe qui aussi mën nga am ay ay jafe-jafe boo ay jafe-jafe loolu daal moom mooy mooy mooy problème euh, du bu sell parce que réew li koy doxal euh, xalaat la hmm. bu sell Euh, Man Ndiaye lan ngay tontu si ñi naan euh, comme euh, Macky Sall li mu bëggoon la président Sall mooy réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam opposition bi dootul tekki dara ci réew mi mm-hmm. est-ce que tey ji loolu yow da nga koy dëggal waaw wala déet gannaaw ba mu xëccee euh, ku mel ni Idrissa Seck teg ko ci wetam euh, est-ce que jàpp nga ni instant yi opposition am na ci réew mi waaw xam nga opposition ak pouvoir mm-hmm. c'est de bonne guerre que lu neex wala baat boo xam ne dafay jógee ci yi ñëw ci ñoom waruñu ko séntu lu mu mën def dina ko def pour gàllankoor la opposition bi aussi lépp lu mu def. pour mm-hmm. suufeel Macky wala daaneel nguuram. Mm-hmm. dina ko def donc c' est de bonne guerre ils sont en opposition bu ngeen opposé ça veut dire que bokk opposition ngi am ba léegi pour yow. opposition am na am na. am na c' est dire que ni mu amee moo di que dañu dañu dañu sakkan trop. Mm-hmm. te xam nga lu bari rek dafay late. boo bëggee lu dëgër da ngay da ngay sélectionné ñi baax seet ñi nga xam ne ñi ngi fi woon wala nekkuñu fi parce que Sénégal aussi fu pas que du du rek ñi nga xam ne ñooy yëngatu politique ñoo fi nekk am na ay yeneen Sénégal yoo xam ne feeñuñu mais ñu am xalaat la ñu mën jiite réew mi la te feeñaguñu diggante bi mën nañ fi feeñ donc bu ñu yemale nag Sénégal rek ci nga xam ne ñoo fi yëngatu ci politique baax na ñu nekk noonu mais am na ñeen ñoo xam ne ñi ngi ñoom wala ñu gën leen. Mhm. te mën nañu ñëw un jour. Mhm. ñëw d'ici 2003 ñu feeñ dugg ci politique. danañ ci ñëw ci kanam mhm. déclaration de patrimoine euh, naka nga ko gisee gis nga Idrissa Seck fan yi euh, ñu tabb ko mu nekk président bu conseil économique social et environnemental euh, mu def déclaration de patrimoine ñu fësal ko coow li bari ci li mu yor est-ce que yow jàpp nga ni déclaration de patrimoine dañ ko war a fësal sénégal yëpp xam kii la mu am ba muy dugg ci nguur gi lu mu am bu muy génn wala dafa war a nekk loo xam ni euh, c'est confidentiel yow naka nga gisee li nga xamante ne mooy déclaration de de patrimoine waaw balaa may ñëw ci déclaration bi mm-hmm. c'est-à-dire que ñiy def politique ni ñuy amee alal mm-hmm. moo jaaduwul mm-hmm. moo jaaduwul dañ waaw da ñëw ci nguur pauvre nga ñëw ci nguur am alal ni ngay amee alal bi moo di alal bi nga xam ne dañ ko waroon tabaxee askan wi mu dem ci nit ñi parce que loolu lañ la fi indee pour nga tabax réew mi yóbbu ci nit ñi ci lu gën seen nekkin bi ñu ñu dem un peu plus mais waxuñu la nga ñëw yow ak yi moo alal bi def ko sa moom la bopp. Mm. te loolu mu ngi tàmbali ci euh, président Wade. Mm-hmm. Idrissa wax na ne. Mm-hmm. il s'est enrichi au pouvoir. Mm. il était pauvre. Quand il est venu, il s'est enrichi. Parce que le président Wade lui a attribué des fonds politiques yu koy permettre mu enrichir. mais loolu gàcce la woowuñu la nga ñëw di jiitee réew pour nga fa am fa xaalis wala xaalis bi nga xam ne da ko war tabaxee réew mi. Mm-hmm. tabaxee ay école ay dispensaire ay euh, usines nit ñi di ci liggéey nga jël ko def ko sa poste d'électrique. Mm-hmm. loolu jaaduwul. loolu jaaduwul loolu moo tax ni ñu def nii réew yu bare. kiy jiite nguur gi bu wàccee dañ koy auditer seet bu muy ñëw lan la amoon. Mhm. mooy déclaration bi bi muy dem lan la am liñ ko joxoon nan la ko defee mais fii laa si réew moo xam ne duñu ñu président yi bu ñu wàccee Chirac audité nañ ko jusqu'à destin dañ koy auditer keneen keneen keneen Macron mii daañ ko auditer mais fii du ñu auditer nit da ñëw pauvre. Mhm. ñëw jël xaalis bi au lieu que nga tabaxee ka réew mi def ko ay liggéeyukaay wala nga def loo xam ne day jëriñ askan wi nga jël def ko sa poos say mbokk say xarit ak say mille militant nga jox leen réew mi mm. loolu mooy li nga xam ne moo jëkk. déjà homme politique yi ni ñuy amee xaalis teguñ ko fenn. c'est pas normal. enrichissement bi ah, ah, ah, illicite benn année ñaari nga nekk si milliardaire si koo xamante ni. amuloo parfois sax biñ koy biñ koy nommé sax euh, pour mu am passe taxi c'était un problème. lool nag bu dañul ci Sénégal. waaw Sénégal du dox. il faut que ñuy am audit même yow entreprise boo ko dénkee benn nit bu doxalee at bu jot wala ba muy bëgg a wàcc. Mhm. daañ ko jox diir ne ko liñ la dénkoon noo ko doxale seet liñ bët bu marché bu fekkee yëpp aw na yoon ay la yoon bu awul yoon ñoo ne la foo jaaree xaalis bi wala nga indi ko et tout ça mais ko def léegi nag patrimoine bi. Mhm. ni ko defee déclaration déclaration bi xam nga dafa yéem nit ñi. parce que loolu ci alal ci benn nit. ci benn nit. ci combien d'années en quatre ans ci réew en quatre ans mhm. en quatre ans rek nga am loolu. def ay njuuj njaaj ay société nga jël ko et tout loolu yëpp mbuxum la. c'est de la corruption il faut que ça cesse bu loolu dañul du am te ba tey loolu moom lañ gis. Hmm. kon gis nga ne alalam ji mënu ko liggéey. mu mënu ko mais mënu ko liggéey. Hmm. mënu mënu ko wax na ko sax moom mënu ko liggéey léegi bu ñu ko waxoon fu mu jëlee alalam rek. sa am problème am problème. day am problème non seulement war nañu def déclaration de patrimoine si li nga bëgg a wax mais tamit boo defee sa déclaration de patrimoine war nga mën a justifier sa patrimoine mais mais loolu la parce que bu bu fekkee da nga ko wax rek. Mhm. bàyyi noonu dutu war nga war mën justifier justification bi loolu mooy indi xam nga yow liggéey nga fii. Mhm. yaa ngi fayee weer. Mhm. million. boo fi toogee douze ans. war nga am nga douze millions mais da nga ciy lekk di ci naan di ci faj say soxla voilà di ci faj say soxla du mel noonu fii amoo fii kenn kuy fayee ko pour am ay milliards yi mu am mhm. du normal mhm. donc loolu man li may jëkk a wax moo di nañuy auditer les gens qui gèrent le pays alal bi dañ leen ko dénk moomuñu ko askan wi ñoo jël seen tout ci alal ni mu toll ñu jox ko benn nit nekk nga doxal ko pour suñu nekkin ak suñu doxalin gën a baax li nga mën ren déwoon nga mën lu ko ëpp. Mm. loolu moo tax ñuy jël kilifa di ko jox nguur pour mu sàmm réew mi mais bu loolu amul waxuñu la ñu ñëw pour séddoo ñoom seen bi ñi fi njaar yëpp presque dañuy séddoo. Mm-hmm. li ñu séddoo. alors loolu na baaxul. mais am na ñu naan euh, comme ça par exemple homme politique bi walla président bi mën na ñëw ñu ne ko defal déclaration de patrimoine même su amul dara sax même su fekkee moment boobu benn milliard la am mën na déclarer déclarer huit milliards parce que day protégé boppam bis buy wàcc mën a sàccaale comme est-ce que souvent sax li ñuy déclarer réellement ñoom am nañ ko est-ce que sóoraale wuñ ni bu ñuy génn buñ duggee foog ñu sàcc bu ñuy génn donc di di nax nit ñi quoi. waaw tamit ci façon façon bi ñuy defee déclaration bi. parce que si tu ne peux pas apporter les preuves. Mhm. doo def déclaration ma jël këy rek bind jox la nga jël. Mhm. du loolu. c'est-à-dire koy jox war nañ leen wan ay preuves bu fekkee ne da nga am terrain. ñu war nga am titre foncier ni terrain bi maa moom bu fekkee compte bancaire la mën nga am relevé de compte bancaire ne lii maa ko moom bu fekkee oto la nga ne lii maa ko moom li nga ko jëndee am nga foo ko jëlee mais xaalis bi source bi fi nga jëlee xaalis bi loolu mooy li ëpp solo. Mhm. moo ci gën am solo ci ëpp solo léegi li ñuy def euh, noonu ay fonds politique li ñu war dindi fonds politique c'est arme la non conventionnelle contre des adversaires loolu du yoon ku ne salaire nga am boo ñëwee di liggéey. ñu mm. jox la sa salaire li nga am li nga yelloo ñu jox la ko mais même njiitu réew dafa am charte ak yoon yu ñu ko teg lu mu war def ak lu mu warul def waaye doo ñëw nekk président lu la neex nga def. Mm. ku la neex nga jox ku la neex nga tëj alalu askan bi yépp dañ ko gaspiller dañ ko piller séddoo ko ji ñoom seen biir Sénégal di dellu gannaaw ñoom ñuy avancer. na ngay mën yow nga ñëw. Mhm. pauvre nga génn nekk milliardaire mais y' a problème. si benn cinq y' a problème. Mhm. loolu su ko nit defee cest à ñëpp di seetaan te tey bu ñu waxee ñu naan dañuy indi net donc ku fi mënti ñëw boobu politique dañu war soppi ni ñu koy doxale kii ñëw nañ ko set lu mu am bi muy dégg lii la bu muy génn lii la am. bu paree lépp lu mu defoon acte yëpp dañ koy seetaat waaye jël euh, oto mayee jël xaalis mayee jël terrain xoolal affaire suuf si. Mhm. xale yi nekk nii di ñëw ëllëg du ñu am du ñu am fu ñu dëkk mhm. suuf sëpp caxat-caxat nañ ko te dañ koy jaay te ñii ñëw ëllëg suñu sët yi suñu doom yi mais dañu soxla suuf te am nañ ci droit seen réew la mais doo ñëw ñi fi nekk nii jël yëpp akima ko ay deux mille ay trois mille euh, mètres carrés mhm. les hectares yi dul jeex nga jox ko benn nit mënu ko liggéey mu jël ko du yoon du yoon c'est-à-dire que bu ñu bëggee wax nit ñi dëgg nañ leen wax dëgg xaalis bi nga xam ne dañ leen ko jox askan moo ko ma dañ ko delloo ci askan wi ci anam yan soit ñu tabaxal leen des hôpitaux liggéeyukaay usine boo xam ne dañ fa mën liggéey. wala leneen hmm. xale yi am am liggéey. mais loolu loolu mooy yow. léegi yow euh, Man Ndiaye d'accord nga déclaration patrimoine comme ni nga ko waxee ñu euh, def ko si dans les règles de l'art mais mu nekk lu confidentiel wala ñu def ko si dans les règles de l'art mais ñu fësal ko askan wi xam. pour yow lan lañ si war a def pour man mën nañ ko bañ a fësal. Mhm. am na ñu ko mën a xam. mais mën nañ ko bañ fësal comme ni ñu ñu koy def ci presse li ci moo di nga bu fekkee bariwul wala yéemewul fësal bi mais c'est rien du tout mhm. mais bu yéemee comme nii mhm. bu dafa yéemee dafa yéemee benn nit mënul am loolu même en cinquante ans on ne peut pas rassembler autant d'argent yow nga defee si ci nguur gi lan la fi nekk quatre ans de euh, euh premier ministre xaw ma pas quatre ans mhm. hein mu am milliards yi di jënd journaliste mais loolu yëpp c'est avec l'aide du président Wade il est responsable parce que moom moo ko jox ses pouvoirs mm-hmm. mooy jóg ay suuf di ko jox comme Macky Sall li muy def rek mm-hmm. nit ñi dañu bëgg yokku créé naa ay milliardaires voilà créé naa ay milliards da nga defee loolu kii la mais c'est c'est dans mon livre là je le dis ici là mm-hmm. c'est pas normal bu fekkonte ne réew mu am dogal la am un état de droit daañ ko wax ko ne ko fan nga jëlee milliards yi nga joxe ñëpp pour defal ko mais regardez fu ko neex lay dem lu ko neex lay wax te kenn woo du ko woo. kenn woo ñi fi nekk ñëpp boo mm. gérer nguur. ba mu mm. jeex nañ la woo ñëw nguur bi nga ñu jël benn une commission wala n'importe qui ñu auditer la. seet li nga dox yëpp lan na jaare bu yëpp amee yoon ñu bàyyi la bu yëpp awul yoon nag ñu ñëw wala pour laaj mais du bu ko deful mais day yomb Sénégal amul alal boo xam ne mhm. ku ñëw tibb def sa poos dem mhm. ñu bàyyi la ku ñëw tibb def sa poos ñu bàyyi la mhm. mais bu ëllëgee si biir lañ ñuy du ñu dund dañuy gën ndóol moo ni ndóol bi coono mooy ni ndóol yoon nit askan bi di gën a sonn voilà nit day yokk loolu lay ñaan yàlla réew day yokk day avancé booy avancé da nga bëgg jëm kanam mais doo avancé mais ñi nga indi pour ñu gérer la ñu jël alal bi yëpp yow ndóol amatul benn liggéey les gosses qui traînent là ndax am ñu liggéey loolu moo koy indi. Mm-hmm. mais Sénégal am na xaalis boo xam ne bu ñu ko dawaloon yoon et puis ay salaire yoo xam ne teguñu ko fenn ne la fay ay millions ay millions te doo liggéey doo def su dul wax wax te li nga wax du nekk dëgg. Mm-hmm. dañuy wax ba falu bu ñu faloo li ñu waxoon yëpp dara lañ si du def. loolu aussi euh, politique bi ci boppam moom la ñu war a soppi. soppi xoolaat voilà soppi te ni ñu koy doxalee. Mhm. am ñoo xam ne dañu ciy teg seen bët. bu jàddee ñu nekk da nga jàdd président bi war na am un pouvoir tu toujours euh, euh, un pouvoir au-dessus de mais un pouvoir sans limite yàlla rek ma ko moom. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen mission sociale toute la ville en parle tey ji kumba Comba Moreau euh, dalal euh, Mandiaye Gaye nekk chroniqueur politique sociale euh, tamit nekk écrivain ñuy waxtaane lépp lu soxal actualité bi beneen ponk danaa la ko laaj bu am solo parce que sànq sax yaa ngi koy junj si biir wax bi ne sax bu dul bu weesoo les hommes politiques peut-être am na yeneen type Euh, de personnes yu mën a ñëw taxaw peut-être dama lay laaj ci activistes yi parce que mm-hmm. gis nañ ni bu weesoo les hommes politique mm-hmm. am na ñeneen ñu am taxawaay ñu leen di wooye les activistes apparemment ñoom bokkuñ opposition euh, bokkuñ pouvoir mais lépp lu ñu gis ci réew mi jàpp ni jaaru yoon dinañ ko yuuxu xeex ko euh, dénoncer ko ñu leen di wooye les activistes naka nga gisee Euh, floraison wu activiste yi dinañ lim euh, le phénomène Guy Marius Sagna euh, gis nga le phénomène Boubacar Sèye bari na bari na ñoo xam ñi ngi extérieur gis nañ le phénomène peut-être ni mu koy defee Assane Diouf ça pose un peu problème naka nga gisee floraison wu activiste yi ñi nga xamante ni pratiquement faruñ fenn mais ñi ngi wax li leen naqari ci réew mi est-ce que ñooñu déjà naka nga leen gisee waaw xam nga activiste. Mhm. ci politique la bokk. Mhm. c'est aussi de la politique. Mhm. parce que da nga am. benn ba tamit ci cadre am position. politique. réew mi ni muy doxee. ni nga ko gisee ak yow ni nga ko gisee bu fekkee ne ànduloo ci doxalin bi c'est la politique parce que politique moom mooy changé doxalinu réew. ni koy doxee. mais dañu gis activiste yu bari soo leen waxee poli homme politique dañuy bañ. non non dañuy mm-hmm. ñu far. Mm-hmm. am que seen position. Mm-hmm. Euh, parce que politique bonul faut pas que nit ñi yaakaar ñi ci seen boppam. nañ koy defee. bon bi ci nit ñi la nekk. parce que la qualité de la personne. ou sa valeur. c'est dans sa personne. mais la politique elle est saine. c'est l'art de diriger la cité waaye njublang bu ñëw nekk politicien. Mhm. ñu jox ko maanaam réew. Mhm. day feeñ moom. Mhm. activistes yi yoo xam ne dañu koy euh, défendre. maanaam ay injustice des inégalités yoo xam ne dañu koy défendre. mais ce sont des hommes politiques. il faut que ça soit clair ce sont des hommes politiques. comme Guy Marius Sagna tey jii. oui mais Guy Marius am na position politique. il a une vision parce politique. parce qu'à un moment donné demoon na bay soutenir le le président Sonko. Ouais, ci élection yi non non euh, Sonko le soutenir Sonko le soutenir dans l'éclat par exemple bu élection amee dina am fu mu féete. sinon dafa amul sens ngay revendiquer. Mhm. di critiquer par exemple nit ci ni muy defee te yow amuloo une euh, proposition contraire parce que boo dindee nit ki li muy def da nga fay teg leneen boo ne li muy def baaxul da naan li baax lii la. mais mu ne nit ki baaxu rek tu ne fais que critiquer c'est pas bien. mais yow naka gisee phénomène Guy Marius Sagna est-ce que ku mel ni parce que mës naa toog di wax ñu ne euh, am ku may waxtaanal nii mu ne peut-être pourquoi pas ci nouveau type de président boobu sénégalais yi bëgg surtout la jeune génération pas mm-hmm. génération yi mais la jeune génération bëgg nañ un nouveau type euh, de président surtout pourquoi pas un Guy Marius Sagna ak lu muy incarné ak lu muy xeex pourquoi pas un Guy Marius Sagna nekk président. oui mën na mën na n'importe quel Sénégalais. Ouais. parce que nu muy comme nu muy doxalee nii peut-être ah, am na un avenir mais, politique. n'importe qui. Mm être président du Sénégal. Mm -hmm. un mhm. citoyen mm lequel. mais foog nga am looy teg mhm. mais mhm. le problème moo di que. individuellement wala personnaliser un activiste pour mu nekk président de la République dafay dafay dafay jafe dafay jafe parce que il ne cherche pas à devenir président de la République On ne peut pas le mettre président de la République. Il faut qu'il fasse la politique. Il faut qu'il développe un programme. Mais, ay action, c'est sur des faits. Un fait peut-être marquant, mais ignoble. Mhm. mu tëj mhm. nga jël nit tëj te amul amul ci droit wala mu def loo xam ne euh, peut-être c'est pas grave nga jàpp ko tëj ko loolu bu mel noonu lay défendre mais loolu sa n'a rien à voir avec sa position politique mhm. mën na appartenir parce que pour mu jël réew mi wala mu nekk truc il faut qu'il se présente comme truc mhm. il faut qu'il dise mhm. man lii la bëgg a def li ak lii ak lii parce que programme dafa baax xam nga lii euh, Macky Sall def yoonu yokkute mais kan moo bañ yokkute kenn ñëpp a bëgg yokkute donc c'est-à-dire que attrape la nigo je pas nigo mais c'est pour attraper les tout le monde a peut-être euh, ce mot qui, qui est valable. Mhm. ba ñëw votel ko mais quand il est venu il n'a pas fait ça donc même pour les activistes et autres mën nañu prôner des choses extraordinaires. Mhm. bien pour le peuple. et ne pas l'exécuter quand ils le pouvoir. Je le disais tout à l'heure, mhm. tous les gens qui font la politique ils font la propagande campagne et tout ça mais bu ñu ñëwee au pouvoir ci nguur gi duñ ko dañ weddi duñ ci ko mën a def duñ mën nañ ko bañ def parce que bañ mën def moo di nga jéem mais boo ko deful c'est autre chose boo ko deful danga nga weddi tu yi trahi wala tu mhm. mais boo ko tàmbalee di def te yëgul ba tey baax na mais am na ñoo xam ne dañ dul def li ñu wax dañ ci dul def naka nga gisee Boubacar Seye tamit moom euh, peut-être sax mun nañ ko wooye carrément activiste mun nañ ko wooye euh, défenseur des droits humains parce que daf ko focaliser ci les migrants lu muy xeex ci affaire migration ainsi de suite euh, nga gis ni temps yi am na lu mu waxoon ci xaalis bu Union européenne génne woon jox ko état wu Sénégal am na lu mu ci wax ne nañ auditer xaalis bi xam fu mu dugg parce que jàpp na ni ñañ ko war a jox joxuñ leen ko loolu tax ñu jàpp Boubacar Seye ay fan ci kaso bi génnewaat ko naka nga gisee affaire Boubacar Seye loolu hmm. loolu normal la. sur le fait que def ne rek nañu auditer. xool xaalis fu mu dugg hmm. moom loolu mu wax noonu. Hmm. yoon la droit am la en tant que citoyen jox nañ xaalis suñu réew dañ ko jógee fenn ñëw jox leen ko. même bu ñu leen ko waxuloon ñoom war nañu auditer mais citoyen am na droit ne xaalis bi ñu leen jox wax leen ñu fu ngeen ko dugal xaalis bi c'était pour tel objet objectif est-ce que def ngeen ko fa buñ ko fa defee ñu génnee ne def nañ ko fa mu jeex. mais li baaxul moo di. Mhm. à chaque fois ñu jàpp ni dugg leen kaso. Mhm. pour rien du tout. waxuma nag ñi nga xam ne dañuy saaga parce que saaga moom. Mhm. man duma ci ànd. Ah, Assane Diouf doo ko def voilà non non non non non non non saaga. ni mu koy defee kilifa. du saaga. boo matee am na loo xam ne doo ko génnee si gémmiñ parce que saaga ki nga ko jëmale ñaaw na ci moom mais yow mi ko génnee tam ñaaw na. politique du saaga du ŋàññi xas ko. ci li muy def. kon d'accord si Assane Diouf ni muy doxalee. non non non non saaga daal man d'accord ma ci. mais nag critique mais la muy wax nag. Eh, mais nee na Assane Diouf peut-être saaga yi moo ko yàq mais euh, ci biir saaga yi. il y a un discours moo yàq voilà critique bi muy def objectif. waaw ŋàññe def et tout cela baax na mais saaga bi mu ciy boole moo ci bokkul donc ni dindi saaga yi te maintenir. les mais d'accord nga saaga yi tax ñu koy tëj ci kaso bi. non tëj non non non non kaso dafa nekk loo xam ne mhm. lu lu grave la bala nga koy def nit am na yeneen moyens yoo xam ne mën nañ ko peut-être euh, euh, voilà euh, punir nit parce que ñiy sacc milliards yi mhm. ak millions yi kër yi et tout ça et cetera mais kenn defu leen dara <coughs> pourquoi à la prison mhm. y pas de milliardaire à la prison ña fa nekk ñëpp ay ay baadoolo la ñu <laughs> wala ñoo xam ne li ñu sàcc bariwul mais boo sàccee million wala nga nekk personnalité mm-hmm. personnalité ak loo def lu garaaw garaaw mm-hmm. dañuy trouver justification boo xam ne nag par exemple keroog li <coughs> li président wax ni am na ñoo xam ne bu ñu leen jàppee réew mi day taj mm-hmm. du yoon amul citoyen benn la amul ñaar amul ñett képp ku teggi yoon yoon war na daal sa kaw. képp ak koo mënti doon nag. Mhm. moom président ak keneen ci raw. du sëriñ du président du keneen ñëpp yoon wi ñëpp la fi nekka dañ ko tracé te yoon bu ñu koy tracé pour lu baax moo tax ñu ko teg ak lu jëriñ askan wi yëpp ku ko jàdd nañ la teg ci yoon mais am ñoo xam ne dañ leen di tëj am ñoo xam ne doon tëj sëy li mu def ak ñeneen li def mais ñàmme di xam ne def nañ lu gën garaaw lool. Mhm. te ñu ngi seen tëjuñu leen woowu leen sax pour te ñoo gën a garaaw am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi def par par exemple ndongo daara yi. Mm-hmm. ak euh, les bu mm-hmm. nu mu tuddati ko sax maître coranique jàpp ni door ko ba mu dee. ba mu dee ci jàngal alxuraan fan la nekk ci diine newul ci diine newul ci diine amul doore jàngal amul doore te ñoom dañ leen di traité duñ leen jàngal teg leen ci bedd mi. torture leen ay xale yu ndaw yoo xam ne gimmi gu ñu xamuñu dara. nga xam ne kooku muy torturé bu toll woon ne moom bu ko dóoree mu fayu mais kii xale la mënul fayu ko donc loolu nguur loolu la war sàmm ñooñu lañu war war awle ci yoon xale yi nekk di mbeloon ci mbedd mi sedd bi amuñu dàll ñu lekk duñu kenn xamul lu ñu nekk et yow nga nekk njiitu réew di ko gis bàyyi ko ci mais normal loolu il faut que yooyu lañ war a lijjanti au lieu que ñuy tëj ay Boubacar mais mais non non non parce que amul mais il, n'a rien dit ce qu'il a c'est une personnalité c'est une personnalité waruñu ko traiter de cette façon même boo amoon kii nañ ko laaj lim mu wax na ko indi mhm. mais yóbbu kaso bi ban sens la am ça change rien ñu laaj la ci beneen ponk euh, Mandiaye Gaye mm-hmm. euh, ponk ah, actualité la foog ñu aborder ko di deuxième vague Covid 19 bi. Mm-hmm. bi deuxième vague bi ñëwee gis nga Sénégal on on enregistre beaucoup de décès officiellement d'après ministère de la santé de l'action sociale li ñuy wax chiffres yi ñuy joxe. Euh, d'après ñoom ñuy laam-laamee vaccin contre Covid 19. lan mooy sa xalaat ci programme de vaccination bi ñu bëgg a teg pour vacciner sénégalais euh, d'accord nga pour ñu vacciner sénégalais contre la Covid 19 wala d'accord pour ñu vacciner sénégalais contre la Covid 19. oui xam nga feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne dafa euh, extraordinaire je ne peux pas dire mais même plus que ça parce que on n'a jamais connu ça. Mm-hmm. dafa grave donc lu ñu mën a sàmmee. feebar bi nañ ko def mais ci biir loolu dafa am aussi ay nit ñoo xam ne xaalis li leen jaral jar na lu ne. Mhm. ba ñuy def loo xam ne maanaam day lor. Mhm. askan wala mu lor ay nit. Mhm. Covid 19 bi fi mu toll nii discipline la laaj te discipline boobu nguur gi dafa tële. mënul imposer boobu discipline. te li koy def moo di day dafa am deux poids et deux mesures. ci citoyens yi mhm. ñii mën leen awal yoon ñii du leen awal yoon mais bu dee vaccin boo xam ne c'est vérifié que mën na aar doomu aadama yi sénégalais yi mhm. moi je suis d'accord mais c'est quel vaccin c'est quel vaccin il faut que nos hommes de science les docteurs les médecins et tout cela mhm. ñu impliqué wu ci affaire yi bu ñu indee benn garab ñoom comme ñooy suñuy médecin ñu joxe seen opinion ak seen avis ci vaccin bi est-ce que vaccin bi valable parce que dans tous les pays du monde les gens sont contre les gens son pour. Mhm. vaccin yi dafa am réew yu bari yu ñuy jóge ñii ils sont pour tel vaccin ñii ils sont pour. d'autres parce que déjà vaccin yi dafa bari. mais ma laboratoire yu bari ku ne génne sa vaccin. par principe. Mhm. vaccin boo xam ne mën na aar doomu aadama ci Covid 19 moi je suis d'accord. gisoo mais quel vaccin mais du n'importe quel vaccin. mais tamit am na ñu ne wóoluwuñ vaccin yi parce que dafa am plan bu ñu teg euh, ba kon la xas ci biir vaccin ainsi de suite ba tax euh, sénégalais yu bëri bëri ils euh, sont réticents. je trouve que je trouve que bon euh, mhm. de de Cuba. Mm -hmm. Cuba day vacciner. Mhm. ay ay ay citoyen. Mhm. Cuba dimbale na fii. Euh, Italie bu ñu amee problème mu jóge ba fële Cuba. Mhm. ñëw ak garabam def leen ne les Chinois ils fa la même chose dañuy vacciner mais xam nga nit du jël vaccin boo xam ne daf koy vacciner maanaam askanam pour ñu dee. Mhm. mais la responsabilité incombe à ak nos médecins et docteurs nga xam ne xam nañu lan mooy vaccin la composition du vaccin lan la ñu mën xam. bu ci amee loo xam ne poison la day rey nit et tout ça ñoom mën nañu mën a xam. mais bu pour yow lan moo andi réticence boobu lu tax sénégalais yi. Euh, ah, ah wóolootuñu. Euh, wala gëmatuñu autorité sanitaire yi li ñëw parce que loolu mooy réalité bi actuellement. Oh, parce que sénégalais yi la majeure partie bu autorité sanitaire yi waxee. bu ñu leen gëm lan moo ko waral. li ko waral dans certains pays. Mhm. xam nga comme je dis le le am ñoo xam ne seen àddina yëpp wut xaalis la ak nuñ ko mën a amee rek baax na. ñooñu am si ñoo xam ne dañuy def ay vaccin yoo xam ne c'est pas vérifié. Mhm. vaccin yi pare xam nga Bill Gates bon euh, ordinateur lañ ko xamee ak internet et tout ça là mhm, mhm. mais il s'est impliqué dans les vaccins pour am xaalis ñu ni gis nañ ne kooku xaalis moo ko yitteel waaye du faj doomu aadama. am na aussi yenn euh, penseur yoo xam ne dañ ne àddina bi. nit ñi dañu bari. dañu bari donc il ñu wàññi leen. Mm-hmm. pour wàññi leen ñu jël par diminuer les naissances. Mm-hmm. diminuer les naissances ay planification planification wala kii loo xam ne. Mm-hmm. Eh, jur gi dana wàññeeku nit ñi daañu wàññeeku mais loolu du ci seen dogal parce que kooku. Eh, dogalu yàlla la. yow sax boo nekkee si kër nga teg nañ seen plan teg euh, cité nga ko mel ni Bill Gates moom nëbbul loolu. waaw waaw mais loolu nag moo indi réticence bi foofu la jóge exactement donc l'origine moom moom dañ leen war a dañu war a wàññi pour moom nit ñi dañu bari waaw léegi ku noonu bu duggee ci vaccin yi mhm. est-ce que taxul ñu bari wóoluwuñ vaccin yi parce que wax nga ko léegi médecin yi mhm. ñoo ñu mën a aar Sénégal am na ay médecins qualifiés yoo xam ne bu ñu indee benn vaccin la première de choses c'est ñu analyser vaccin bi c'est composé de quoi est-ce que am na ci vaccin bi loo xam ne man na euh, rey doomu adama mais du ñu commandé fële rek comme ni ñuy commandé par exemple une voiture wala loo xam ne. jëmul ci askan bi de loo xam ne c'est c'est la santé publique. bah il faut que ça soit vérifié. Mm-hmm. par des gens habilités et qui capables. mais mais mais Mandiaye am na ñoo xam ba léegi gëmuñ feebar bi. loolu lay wax ne la dañu euh, yaakaar ne loolu nag ces chiffres là sont fabriqués de toutes pièces. loolu nag gis nga ñi ko gëmul woon. waaw ils partie des gens qui ont augmenté la maladie. Mhm. ñii affaire bi yokk ñi ko gëmul. ñi ko gëmul ñoo maladie bi ñoo ànd. li mhm. yokk feebar bi ñoom ci lañ bokk. parce que yow boo feebaree nga dem ci médecin bu la joxee garab nga jël ko mu ne la feebar bi lii ak lii la gëmuloo ko. Mhm. y une contradiction boo amee sibiru rek wala sa bopp di métti nga dem ci médecin mu ne la li lii jëlal mais kooku bu la waxee ne la feebar bi grave na wala lii am na mm. mais war nga ko mën a gëm soo ko gëmul c'est ko am na ñoo xam ne vraiment je m'excuse mais moom comme doomu aadama comme comme bàyyi ma ko mm-hmm. parce que boo amee xel di réfléchir nga ji feebar bi li ma yóbbu ci ay nit même bu la jegewul. am na ñoo xam sax bu ñu nee diw faat na ci Covid 19 ñu ne Covid 19 bi. ray ko kooku nag leneen moo ko ray leneen moo ko ray ñu lax lëmas ko ci Covid 19 bi. ça ça pose problème est-ce que suñu autorités yi euh, surtout les autorités sanitaires wala suñu njiitu réew mi est-ce que amul faille de communication par rapport à Covid 19 ba tax askanam lu mu ko wax du ko gëm. parce que loolu ça pose problème nga dem ba sa askan loo ko wax du ko gëm. te te te te maladie bi dafa nekk maladie bu dangereuse. non askan wi. yaa xam nga dama koy wax sama livre bi a une indiscipline caractérisée. Mhm. le civisme et la citoyenneté dafa am solo ci réew mi. Mhm. mënuloo ne euh, réew mi docteur yi fi nekk seen xam-xam ak yooyu yëpp. Mhm. buñ ne la lii am na. Covid bi. du du yi lañ gëmul de. réew mi euh, askan bi nguur gi la ñu gëm te lii la gëm moo di dañ leen di wax toujours loo xam ne amul toujours loolu moo tax même lii am na mais mm. ils ont des difficultés à mm. convaincre les populations am na mais kii jarul nguur jarul kii parce que àddina wërngël képp la bu fekkoon Sénégal rek la ñu ne bon kii li mu ñu wax du dëgg mm. mais du Sénégal rek c'est dans tous les pays du monde àddina bi wërngël képp la fépp la am te ñëpp ñoo koy moytandu kon nag yow bu ko weddi parce que li ngay weddi tegoo ko fenn ci ama neex rek nga ko teg amul mais lan moo la firnde la amul. ñii de xaw ma ah, ko am. waaw xaw ma ko non non man man ma xaw ma ko am. mënoo ko xam parce que yow. doo docteur xamuloo xamanuloo doo docteur. Mm. boo feebaree dangay dem dispensaire bu la médecin bi kon la jëlal aspirine da ngay jël aspirine bu la médecin kii lu garaaw la mooy te ndikul di def li soo su ko moyul feebar bi na la dal looy def. mais toppal la médecin bi wax médecin yi ñuy góor la ñu bariwul et puis leneen li moo di que comme mm-hmm. li ñu koy waxee mm-hmm. amuñu structure sanitaire yu doy mm-hmm. parce que calculer wuñu woon mais à partir de maintenant je crois que programme bu gouvernement di def plateau war na ci boole hôpitaux war na ci boole école loolu mooy jëmale de école bi moo di ñiy def ñi am xam-xam pour ñu am ay docteurs yu bari di mën a faj nit yi hôpitaux yi ñu def ko pour ku feebar man ma dem faju fa def ko njëg goo xam ne dina yombal nit ñi mhm. loolu c'est important c'est important hmm. mais loolu lañ deful léegi dernière question parce que temps bi hmm. xooj nañu hmm. juste ah. une minute moo ñu <laughs> dese eh. euh, régulation wu emploi bi parce que c'est eh. vaste régulation wu réseau sociaux yi ah. euh, yow d'accord nga si waaw wala déet parce que gis nañ ni maintenant sénégalais yi foofu la ñuy exprimer woo foofu la ñuy wax lu leen neex foofu la ñuy wax lu leen naqari Euh, beneen sort de de de de média la foo xamante ni fa la ñuy exprimer woo mais gis nañu souvent euh, du arranger nguur gi ci anam yu baree bari ba tax ñoom dañuy laam-laame ne dañ koy réguler loo ci xalaat. waaw juste une emploi bi nag hmm. ak loolu mais emploi bi c'est vaste pour ñu <laughs> emploi bi mais mais réseaux sociaux yi waaw il faut reconnaître il y a de l'exagération hmm. te du ñëpp parce que am na njëriñ baax na fi hmm. mais am ñu ci dugg ñoo xam ne euh, c'est comme dans dans tout métier am na déjà yoo xam ne c'est des criminels mm-hmm. li ñuy wax jëriñul askan jëriñul kenn y a des gens ils sont tellement comment dirais-je euh, forts méticuleux ils peuvent créer des chose def par exemple des vidéos yoo xam ne da nga ma ciy def def ci keneen et tout ça taqal mm-hmm. yoo xam ne yëpp c'est une fabrication. fekk dara du ci dëgg. dara du ci dëgg. kooku. Mm-hmm. yàq àddinaam et tout et cetera c'est fini dafay dem dans du monde entier. Mhm. je trouve que loolu inconvénient réseaux sociaux la mais am na des informations yoo xam ne tey bu dara amee boo ko ci defee àddina bi yëpp a koy yëgandoo mën na ça ça sécurise ça peut permettre au gens aussi ñu ñu jàng ñu am xam-xam yépp a mi ngi ci biir donc réseau lu baax nga ci lu bon nga ci mais ci jëfandikaay bi ni ñu koy jëfandoo. Mhm. jëfandikoo. foofu la problème foog ñu xoolaat ko kon foog ñu xoolaat ko président ne foog ñu xoolaat ko mais mënu ko xool mënu ko xool parce que dafa dépasser mhm. capacité. parce que da ngay gis sax euh, comme. dans tous les pays du monde mun. kan même page président euh, ko mais mais kenn mënu ko. Mhm. Trump ngi nii. Mhm. li ñu ko defal ci ay kii dara mënu ci dara. te c'est une grande puissance. c'est une grande loolu nag mi ngi dépendre ci citoyens sénégalais. ñu am mat am conscience. am. xammee lu bon ak lu baax buñ koy def doo jël nit nga tilimal ko wala nga jël def ko ci nii la mais léegi lu am ñu def ko lu ne lu ne lu ne. nga ni daal euh, euh, exagération. non non non exagération boobu. Mhm. mooy tax léegi nag euh, nguur est-ce que dana ko mën def je ne crois pas parce que des pays. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi waxtaan bi neex na am na solo peut-être problème mu prochainement dinañ ko. euh, aborder parce que euh, c'est vaste voilà. waaw waaw c'est c'est très important surtout pour les mm-hmm. jeunes mm-hmm. il faut de de l'emploi parce que mm-hmm. loolu mooy développer de en maa ngi leen di gërëm di leen euh, sant ci euh, li ngeen ma invité am naa yaakaar ne peut-être auditeurs yi daañ ci jëlee dara lu xam ne dina yokk wala loo xam ne xamuñu ko ñu ñu ñu xam quoi encore une fois merci beaucoup merci <laughs> beaucoup ñu koy remercier bu baax a baax euh, Mame Ndiaye Guèye euh, nekk chroniqueur politique et social nekk tamit écrivain ñu koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube euh, Rewmi officiel wala ci suñu portail internet comme day Comba Moreau di leen wax samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen ak beneen invité jaa ngeen